Euh, Abdoul Malick Bousso maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay voilà Abdoul Malick Bousso nga nekk membre du bureau exécutif du forum civil déjà ma lay laaj sa analyse ci li am ca Tomboronkoto ca Kédougou nga gis ni am na compagnie boo xam ni dafa ñëw ne askan fa dëkk nañu puus pour ñu xool or ba fa nekk ñoom nag ñu daal di bañ ba tax jàppante yu métti amoon fa ay dégâts aussi daal di fay am naka nga gisee xew-xew boobu lay ca Kédougou waaw day kumba li nga wax lii du bulet amoon na fi euh, population yi nga xamante ne ñoo bàyyee ko Mako euh, fale ci commune Tombaronkoto seen relation ak Petrol Mining Company PMC euh, dafa xaw a xajam loolu yàgg na ba jeunes yi sax jotoon fii def ay ñaxtu yoo xamante ni indi nañ problème ba ñu lakk ci ay ay engin compagnie ba ba ñu ci tegoon loxo euh, ay xale euh, président de la république ca euh, loolu am na waxtaan bu mu waxtaanoon ci conseil des ministres ba yebal premier ministre mu lal waxtaan ak ministre yi nga xamante ñoom ñoo ŋànk affaire extraction minière yi ak ak compagnie minière yi ñu mun a saytu seen nekkin ak communauté yi Euh, loolu nag ba léegi euh, premier ministre jëmalul loolu euh, wartuñ ko ci xaar loolu yëpp dafay wone ne ab piin état day joxe concession jox ko ay compagnie ñu war ko exploiter loolu bu ko defee dafa am loo xamante ne yoon moo may miin bi loolu mais dafa am aussi ñi nga fa nekk di fa dund Euh, dundin woowu am na aussi lu leen yoon may yoon dafa leen may ne ah bu ñu fa nekkee euh, la leen fa jëlee dañ leen war a jox ndàmpaay gunge leen ca dundin bi nga xamante ne moom la ñu war a dund fekkee min bi yegsi na te loolu yëpp dafa xaw a euh, am problème problème boobu nag la koy dindi mooy que ñu lal waxtaan à la base entre communauté yi ak compagnie minière yi ñu war a jëmmal ñaari mbir au moins benn bi mooy contenu locale bi nga xamante ne way jëflante yi nga xamante ne ñooy jëflante nit ñi war nañ ci mun a am koom mooy groupement de féminin yi euh, mooy euh, entreprise locale yi lamin yu war a soxla ñu war a mun a euh, tàggat seen bopp wala ñu tàggat leen ba ñu mun ko mun a proposer muy ay biens yoo xamante ne dañ koy jaay mine wala ay services yi nga xamante ne dañ koy defal mine beneen bi mooy responsabilité sociétale d' entreprise mooy que yow boo ñëwee nekk ci bërëb bërëb boobu euh, nga am koom nga fa wut si euh, na ngay jëflante communauté yi fa nekk am na xeetu loraange yi cay jóge xeetu loraange yooyu nag puisque mënuñu ko ku nekk ñu fay la euh, bokkul ak indemnité liñ la yàqal yow ku ne mais communauté bi la ñuy yàqal wala la ñu la ñuy indil problème dafa laaj ñoom ñi nga xamante ñoo fay nekk di fa exploité am lu ñu jël ci seen bopp ñu jàllale ko communauté bi ñun nag forum civil dañ bëgg loolu jaar ci collectivité territoriale yi ci seen plan développement local collectivité yi dañu war a dem ci population yi saytu seen ay besoin def ko ci seen plan de développement parce que loolu lañ leen fa tegee mooy ñu saafara jafe-jafe askan wa bu ñu defee loolu am na loo xamante ci impôt askan wa lay jógee am na loo xamante ne war na jóge ci miin yeeg état ku nekk pàcc nga ci war a mën a jël nga jël ko compagnie yi ci seen RSE au lieu ñu jël ay billet maaka ak ay leneen ak leneen ak leneen ñu dajaleel lu takku loo xamante woon na saafara soxla collectif ñu ne ah ci plan de développement local bi di on prend en charge par exemple poste de santé bi wala ak ambulance am wala dëkkuwaay bi wala école bi wala lu mel noonu loolu mooy indi que population bi ci ah ñii de ngam ñu ngi fii di liggéey nangu nañu suñu tool nangu nañu suñu ay bagage di ci dara mais am na as njëriñ lu ñuy indil loolu dina mun a wàññi tooke yi nga xamante ni exploitation minière bi dina ko indi ci mais loolu yëpp dañu gis ne dafa xaw a dafa xaw a euh, sooxe tuuti te laaj na ñu gunge leen euh, forum civil nag mu ngi euh, waxtaan ak communauté yi am nañ fa benn programme sax bu ñuy déroulé mooy transparence dans les industries extractives ak USAID yàgg nañ ci loolu sax euh, di travail ci justice fiscale di organiser population yi di leen yokkale xarale et aussi di di saytu collectivité territoriale yi mun leen dimbale ñu mun a am ay plan de développement local ya nga xamante ne mën nañ ci dugal euh, bëgg-bëgg population yi am capacité de négociation li président wax dafa am solo la kulli aal ñu tëkkalal euh, communauté yi waxtaan ak compagnie minière yi yéen lan lañ leen may mais lañ leen may lan ngeen ci war a mën a jël lan moo ci jekk eh, yéen it en retour lan ngeen di compal askan wi ngeen fa fekk compal woowu naka la war a mel naka la war bi am na lu ci déterminé penco moo koy te loolu dafa xaw a ñàkk tuuti. Euh, Abdoul Malick aussi euh, si kaaw Tomboronkoto la fa am ca Kédougou lan la mhm. code euh, minier bi prévoir par rapport ak situation bi xam nga code minier bi bu avant dafa dafa dafa gën a euh, may doole kii ñëw di yër pour wut si ressource bi dañ ko ko yombalal ba nga xamante ne état dafa renoncé ci lu bëri loo xaman dafa waroon def ci gafaka nguur gi mais même ci collectivité territoriale yi am na loo xamante ne seen àqal seen yelef loo xamante ne état bi da ko may miin bi ñu waroon ko tabu nag parce que miin bi war na am aussi moom lu indil askan wi wala lu mu war a indil communauté yi nga xamante ne foofu mais euh, au côté mine bi dañoo tardé woon ci affaire lu ñuy wax contenu locale contenu local bi euh, yàggul sax bi ñu defee benn stratégie nationale de collectif de contenu local minier et euh, et aussi dabu li nga xamante ne jot nañ ko def ci secteur hydrocarbures yi ñu tabax benn loi législation ak réglementation sur le contenu local minier ba def en place sax ay jumtukaay yoo xamante ne ñoom ñoo war a Uh, saytu loolu wala wala gunge ko uh, loolu nag dafa tardé ñu ngi koy ñu ngi koy defar mooy genre ay plateforme yoo xamante ne plateforme yooyu ci lay compagnie yi di publier seen uh, seen plan de passation de marché seen euh, seen euh, seen offre offre de d'emploi ak seen yu bëri yoo xamante ne euh, dañuy jëflanteeg ñeneen pour mun a def seen liggéey ñoom te loolu gis nañ xaalis bu bëri bëri bëri bëri moo ci jóge mais ci ay euh, société étrangère lay dem parce que xarale gi war nga xamante ne euh, waa waa réew mi wala ñi nekk foofu niveau local am nañ ko dafa des te dafa laaj état bi comme compagnie yi comme société civile war a gunge comme tissu économique local bi ak tissu économique national bi pour mu mun a capturer opportunité d'affaires yooyu di ñëw loolu nag dafa laaj renforcement de capacité accès a à des ressources financières formalisation loolu yëpp euh, ñu ngi ci liggéey euh, mais dafa laaj ñu gën ko biral euh, mu gën a mu gën a gaaw parce que soxla yaa ngi fii dafa tar nit ñi mënuñ comprendre que ñu naan léegi on est à douze à quinze quinze tonnes d'or qui sont produits au niveau de de euh, de la région de Kédougou te population bi gën a sooxee euh, jafe-jafe yi gën a tar te loolu dafa laaj ñu corriger ko euh, bu ñu ko corriger wul c'est des bombes sociales qui la là potentiellement yu war a mën a exploser te loolu du ci mucc état bi du ci mucc population duñ ci mucc compagnie yi duñ ci balaa loolu nag peñ coo voilà euh, est-ce que euh, ñu bari sax dañuy xalaat ni est duñ dund la même chose euh, bu ñuy exploiter pétrole bi ak gaz bi fii Sénégal comme rek ni ñu exploité or bi te sénégalais gisuñ ci seen bopp waa Kédougou gisuñ ci seen bopp. lu njëkk am mooy que war nañu gérer la ñuy wax Atlantique Sénégal la koy tabax mooy digg waa Sénégal ak koom bi ñu am bu ñu yaakaaree ne pétrole bi ak gaz bi lépp dina ci jógee. dañuy nax suñu bopp parce que d' abord le Sénégal n' est pas un pays pétrolier ni gazier du ñu Qatar du ñu sax Guinée Guinée Guinée euh, en terme de ressources dañu bi mooy que euh, jon nañu anticiper jur yu bëri parce que jàng nañ ci ñu jiitu mais terewul que projet yi ñu développé projet yi ñu développé dañu koy nas ak di ko ci code pétrolier bi nga xamante ne ay dispositions yu am mooy dispositions yi code minier bi amoon mooy yombalal ñii di ñëw di yër ba bu ñu yëree ba gis ah seen exploitation mën a yomb ñu mun ci am dara ngam ñun danañ ci séentu dara man lañ ciy séentu ñun ñoo ko war a fexe ba ñoŋal ko ñoŋal bi nag mooy d'abord euh, cadre réglementaire bi ak ñu ñu toppatoo ko ba mu dëgër observé ko respecté ko muy benn ñaareel bi yemale surtout et surtout xam ne la ñuy am ca loola mooy jëflante bi ñu jëflante gaz parce que gaz bi bu ñëwee mun na mun na développer industrie yi te euh, reconstruction bi ressource bi di permettre yéen ak ak de levier bu muy joué ci yeneen activité économique yi muy tertiaire bi muy euh, euh, industrie loolu moo gën a am solo ka la ñuy jaay ak partage de revenu te loolu nag dafa laaj ay transfert de compétences ay transfert de savoir-faire ay transfert de technologie et, et surtout l'implémentation d'une d'un secteur privé dynamique capable d'être conquérant sur des segments significatifs yoo nga xamante ne moom la industrie pétrolière bi ak gazière bi indi te loolu àla euh, kulli aal aussi ñëpp ñi ci war a liggéey ci et surtout surtout euh, que euh, suñu suñu privé bi moom commencé organiser wu parce que euh, ay petite ay moyenne entreprise fekkee boole wu ñu seen doole mbagg ak mbagg ña nekk ña ñu jaakaarloo am nañu doole boo xamante xetu xew ñu sax ci état à plus forte raison ci benn petite ou moyenne entreprise. Hmm. loolu aussi dafa laaj ay gëstu dafa laaj euh, ñu xool naka la fan la ñuy teg tànk. Hmm. pour léegi ñu ci loolu. Euh, dernière question Abdoul bu soo naka nga gisee euh, décision bi justice française jël ci affaire euh, Karim Meïssa Wade nee Sénégal fi ñu toll nii war na fay Bibo Bourgi 168 milliards naka nga gisee mbir moomu. xam nga euh, lii la ñuy wax euh, gouvernement toujours bu muy bu muy xool ak di signer ay mbir na xool suba na xool d'abord intérêt réew mi naam bëgg nga benn industriel wala benn compagnie ñëw investir Sénégal mais boo fi ñëwee signé ak Canada wala île Maurice ay traité bilatéraux d'investissement yoo xamante ne suba da ngay yow mi ma signeel may naa la sañ-sañ lu ëpp sama législation locale pour yow nga yombalal say nit ñëw investir au Sénégal suba bu ñu amee jafe-jafe ak kooka kooka mun na convoquer national am wala fa société am immatriculée mu nekk benn juri lu ñuy wax juridiction complaisante juridiction boo xamante ne euh, ay loi am méngoowul ak suñu ay loi maintenant euh, Bibo Bourgi a contourné la sanction un tribunal sénégalais l'a infligé pour xool ne euh, non ñene atte la Sénégal atte la ñu atte mooy que investir na au Sénégal en tant que français investissement am ça n'a pas été sécurisé neenal nañ ko donc nañ ko fay ndàmpaay bu toll loolu ak ay daan loolu dafa wone ne en fait insécurité juridique bi nga xamante ne traité bilatéraux d'investissement yi mën nañ ko indil ay réew laaj na ñu fagaru laaj na xoolaat et surtout ñu bàyyi li ñuy def nii ku ñëw rek euh, am benn projet d'infrastructure bu ndaw wala bu mag nga signé euh, kii war a ñëw liggéey mbir mi dem réfugié ci benn réew nga signé benn traité bilatéral d'investissement ak réew ma wala nga signé benn convention fiscale ak réew ma pour le temps d'un marché affaire boobu topp Sénégal ba illaa yow ni diin loolu il faut ñu xool ko rationaliser ko dafa jot nag nit nekk sérieux dans ce qu'ils parce que lii mënuñu com comprendre a ah, lañ ko teg ak daan yuñ ko teg loi bi may na ñu ko ko yoon may nañu teg ko dafa contribuer yàq alalu réew mi mais loolu gisuma lan la ñu war a mun a may ay vulnérabilité yu may mun a rebondir ba ba ba mun a jëlaat ci ñun liñ jë liñ yaakaar ne moom moom moom la ñu yàqal ba nag ñu teg ñu ay daan yoo xamante ne mooy dommage intérêt yi ñu ñu ko war jox loolu aussi lu jar a seetlu. Abdou Malick maa ngi lay remercier bu baax a baax. ci leeral yi merci beaucoup. voilà may fàttali ni yow euh, membre nga ci bureau exécutif bu forum civil Abdou Malick Bousso merci beaucoup. merci beaucoup